ne ci làmb ji la nekk di ñaanal suñu frère suñu xarit Moussa Dioum 2 yal na ko yàlla may ndam la 14. mais nag moo ngi bëre booy bu waane booy bu mën a bëre booy bu am wéccatu bëre muy booy si. non man moom Moussa Dioum du ma ko bëre parce que ñoom génération noonu ba bat xam naa lu mën ak lu mënul. mais a bëre bi est-ce que du am lu muy def ci moom. góob ma loolu. góob ma loolu parce que dama mu bëre boo ba léegi gars yi nga muy ànd ñoom di contact kon loolu waru ko di ko ñaanal rek ko yàlla suturaal may ko ndam di ñaanal góor soog ko yàlla may ndam ak euh, beneen booy parcelle bi ñoom yëpp képp mbër bépp mbër parcelle ba mu combat la yàlla may ndam bu soobee yàlla. kontaan naa jaajëf Ousseynou. naka nga gisee Moussa Dioum moo jàkkaarloo ki nga xamante ne mooy Boy Jules nekk xale boo xam te ndaanaan la te dafa am moom tamit dafa xaw a saay saay ci bëri. waaw Dioum de koo gis xam liggéey li a liggéey parce que ñoo doon préparé ndax tamit jàmbaar la ndaanaan la koo gis xam liggéey la lépp lu laaj mu waaw. kontaan naa la suñu borom dafa ko sori bu baax mu am ci ziar. ci loone sant yàlla alhamdulilah. tey ñu gis Dioum 2 def open press nga ñëw fi la woloon sa teewaay tey. mooy joon Dioum sunu rakk la bu xewlee ñu ñëpp ñu di bàyyi yëpp di ko pousser vers la victoire aussi quoi. mais ñu gis mu gëj bëre defe naa 6 ans xaw ma 7 ans bëriwul est ce que bu wàccee ci diggante ma Boy Jules loolu mënu ko handicapé tuuti. waaw ah, mais moom musul bàyyeeku boo xoolee xam ne moom musul bàyyeeku xëy na dañu yàgg amul combat. mais loolu andi ko foog dara mi ngi doon entraîné mi ngi ci ay état bu baax ñu koy ñaan yàlla defal ko ndam incha allah ah, waaw ndax nga gis noonu waa bëri Boy Jules parce que Boy Jules tamit bu ñu xool ndaanaan la ndaanaanu bëri la te dafa am weccitu bëri dafa mën a bëri Boy Jules waaw loolu laay dégg man xaw ma ko nag mais ñëpp nangul nañ ko parce que nangul nañ ne Boy Jules ndaanaan la mais moom mi ngi bëri ndaanaan Moussa Dioum dëgg combat bi a a jëflante ak Boy Jules xeex wala bëri bi rek ah la bërekat la lu mu fekk gis euh, bi nga ñëwee ubbi jàmbaaru suñu académie bi ñu gis parcelle ak déggoo bi ñu gis dañ ko yéexoon nu gis lan moo waral loolu est yomboon na. non non avant jàmbaar moom parcelle moom wax dëgg yàlla ay 5 ans wala 6 ans 7 ans wax dëgg yàlla li ñu def benn bloc boo xamante ne macha allah quoi macha allah. mais dajale ay xale yoo xam te ne bokkuñ fi ñu jógee bokkuñ fi leen di entraîneur ñoom est-ce na. waaw mag ñi mag ñi bu ñu yi cër rek xale yi gis nañ loolu delloowaat ñu ko moo suñu ànd mu rafet quoi di ñaan yàlla yàlla mosuñ seytaan rek quoi incha allah. kontaan naa aywa amal problème. nuyu naa la. maa ngi lay ziar waaw. ci loolu nag. lépp jàmm xam nga. ñu gis Dioum 2 def open press naka nga ko gisee état de forme a bëre gëj a bëre gëj a bëre est ce que mënul feeñ coow parce que 5 ans xaw ma sa temps ba toog ko waatoo ci arène géew bi est ce ko xaw a handicapé tuuti. waaw xam nga loolu nekkul si dara quoi parce que gëj na bëre mais teewul xam nga gars yi mi nekk ñi nga am combat te mi ngi préparé ak ñoom di waaj ak ñoom chaque fois xam nga kon xam naa ni géew gi mënu ko réer quoi géew gi mënu ko réer xam nga muy nekk booy bu baax booy bu yaru xam nga ku am yar am diine am xam nga Moussa daal kenn mënul wax si moom di ko ñaanal yàlla mu may kon ndam bu xonk bu sedd kuy su barak yéen bi waaw mais mais muy bëre booy boo xam te dafa mën a bëre muy booy Jules nekk ndaanaan nag xam naa ne euh, dayo bi réyul mais ndaanaan la ci wàllu bëre non booy Jules la moo tëdd rek mais li du combat quoi non Moussa dina ko duma daan ko bu soobee yàlla incha allah. waaw amul ah, sax werante. da koy duma daan ko. mën ko xool mën ko loolu du combat. waaw ko bu soobee yàlla incha allah ku baax la. bilaahi. Franc nuyu naa. waaw fay kay. gaa yi ma gis la nga wàcc stade sa teewaay keroog stade dimanche. rek man xam nga ñun dañuy dund làmb dañuy seetaan làmb loolu la woon rek. ñëwoon pour baaxu si wala grand combat bel fàtte non damaa ñëwoon damaa ñëwoon pour baaxu si nag waaw ah, mais en tant que ay mbër dañu ñëw làmb day am événement mag la aussi tamit suñu père dëkk ko père Gaston ñu ñëw tamit mais nga ñëw keroog ma gis waa stade bi yenn booy may ñu la jàmm ne la doo toog doo toogee côté bi coow li bari woon na non non fi ma toogoon moom amul problème quoi après xëy na daa am ay loolu am na yoo xam mënul ñàkk quoi ñoo xam dañuy perturbé dañuy yàq moo leen tax a mais ça va loolu moom du dara. mais boobaa ak léegi yan combat la ñuy dox fi mu toll am na lu ma jot a dégg est ce que pare nga pour jël loolu. waaw ñu ngi may wax combat quoi mais maa ngi man dama am staff quoi ñu ngi waxtaan mais bu sootee rek incha allah ñëpp dinañ ko yëg. ñu gis tey Dioum 2 di def open press nga teew naka nga gisee Dioum 2. waaw suñu frère la d' abord ñoo nekkoon di préparé wu yàgg na préparé wu yàlla na yàlla motali lépp rek. état de forme bi. waaw naaj xooloon nu mu mënoon ci ak léegi. wax dëgg yàlla sant yàlla. yow moom la umpule woo Boy Jules. waaw loolu nañ koy bàyyi entraîneur yi rek ak staff bi ñoom ñoo way wax loolu quoi ñooy àgg ak moom foofu mais ñun def nañ ko lépp luñ si waroon jàppal nañ contact entraînement lépp yaa ma gën a xam. kontaan naa ci. ah ma ne kontaan naa ci. merci jaayëf. tey ngeen ñëw ci open press gi nga xamante ne mooy Jume 2 naka nga ko gisee. waaw open press bi foog ñu ñëw parce que dañoo bokk lu ñu mënut a séddoo muy parcelle te Jume 2 da ne lu waay xew la day ñëw kon ñun suñu ñëw loolu tax lu ñu jàppoon lu ne dañ ko bàyyi di ñëw comprendre noo yàlla rek noo ko gisee naa nga gisee jumtu gisee mu ngi si forme liggéey na lu mu war a liggéey dañuy xaar jour la rek yàlla may ko ndam mais nag gëj a bëre bi est que du du parce que boo bi muy bëree tam dafa mën a bëre muy booy waaw non soo gisee du mën a feeñ ka xam nga lu tax du mën a feeñ ndax gars yi ñu ngi ko doon préparé mu ngi nekkoon ay mbër yoo xam ne dañu doon bëri mbër soo jaxasoo ak mbër yi rek yaa ngi ci làmb quoi te Jumdo nangu na lool te nangu na ànd ak gars yi liggéey jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu am mbégte tey ñu teew fii parcelle ko ñu Moussa Dioum numéro 2 tey di open de presse am Boy defoon na fële ca Pikine macha allah mu wàcc ba zéro tey nag ñëw nañ fi fekk fi waa parcelle waa Rock Énergie waa jàmbaar waa parcelle mbooloo ñëpp teew Papa Sow Ousa 2 boo limee da ngay juum garga mboose daam seen ñëpp teew nañ mbëri parcelles yëpp ñi ngi nii taxaw ñi nga xam ne ñëwunu nag jot gi moo leen ko maye seen tànk mënta si fii tey ba tax na jamaykee moo ñu woo dimanche fële ca stade arène nationale bu Pikine combat bi yaakaar naa ne nekk na combat boo xamante mooy dernier derby bi mooy tëj saison bi diggante parcelle ak pigin yaakaar naa ne ren tàngal nañ saison bi ba mu tàng jër jam nag ne coow li maa koy jël tëj ko fële ca arène nationale Pikine jël booy sil boole ko xale bi nga xam ne mooy Moussa Dioum numéro 2. takkusaan googu Jokal dina fa jàkkaarloog Tidiane Faye takkusaan googu Gora Sock mooy tëj dab dëpp gi ak digganteem ak Fils de Balla Moussa Dioum 2 ñu nuyu la bàyyi nga nuyoo mbokk internet yi bàyyi la nga nuyoo say mbokk ak sa waa koy ñu ngi lay ziar. waaw dañuy sant yàlla di julli ci yonent bi. di sant sunu ñaari waajur encore une fois di ñaanal ñi tëdd hôpital yàlla fëgg seen bopp ñi tëdd seen kër yi feebar tamit yàlla may leen wér xam nga di ñaanal way dawde yëpp yàlla xaare leen àjjana di ko jiital sama turandoo Moussa Balla gay mbër yëpp ñoom Gilles Balde Junior gars yi yëpp ñi dëdd mm-hmm. Moussa Dioum sama turandoo tey gis nga bi biñ tëggee tuusu Moussa jum bi ñëpp a yëngatu mm-hmm. xam nga xol yëpp ñoo tooy xam nga di masawu nag waa koñ bi yëpp di leen wax lii defuñu ko pour dara dañ ko def rek pour neexal yee waa koñ bi pour ñu la 14 comme mobilisation bi ñu def nii ci open press bi ñu gën ko yokk mu gën a am doole quoi ndijaay waaw ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko aha yeggaleel waaw mooy loolu quoi instant bii nii tey damaa kontaan. Mhm. parce que man mun naa ne maa ngi door a def open press sama carrière. billaahi combat yi ma bëre yëpp musuma def open press. xam nga te dama gëj a bëre tamit mais loolu moo tax sama def ko. Mm. pour yee nit ñi ñu ñëw ci combat bi la 14 damaa bëgg booy yëpp. ñu mobiliser wu ñëw jàppale mbëru parcelles yi ciy bëree yëpp. Mm. du man kese parce que am na samay moroom yu ciy bëre. di ñaanal waa parcelle ñëpp yàlla may leen ndam. di sant ñoom wan saw xam di sant Guèye original goo Faye gaa yëpp jàpp nañ ci combat bi xam nga di sant tuuti sik ñëpp ñu ngi leen di woo di sant nag encore une fois ma patron Papa Sow maa ngi koy sant bu baax a baax tey bu ma bëree bu ma amee combat yàlla moom la xam nga maa sant bu baax a baax a baax a baax xam nga di sant waa écurie jàmbaar yëpp ñoom Franc Dame seen Garga 2 xam nga Goro Sok ñëpp maa leen sant gars yéene lañu am ci man ñoom Aline Diom Elimane maa alaaji Abdounar ma doomu ndey Ousseynou Bour Géwél Petit Zo booy koñ bi yëpp ñoom jibi yoo gaa yëpp bàyyiwuma kenn noo rëy nii ku ma limul rek nga comprendre ma xam ne temps bi moo xat quoi mais xam naa seen yéene ci man incha allah la 14 ñu teel a dem stade ma teel leen andil ndam li incha allah bu neexee yàlla. dina dina sant dina woote buy woote dina woo meeru koñ bi ak paayu koñ bi yëpp ñëwal ci ale kalaj ji sa digganteeg booy Gilles ndaanaan la tudde boppam ndaanaan yaakaar naa ne yéen a war a tëj bi nan nga fas yéene jëflante ak moom. instant bi pour man moo daan Anta wax xajatu fi quoi parce que dimanche ñëw na rek xam nga li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko ci signature yeeg xam nga affaire yooyu ne instant bi liggéey nañ loo xamante ni nii. yàlla sunu boroom mun nañu ci may ndam. xama nga instant bi lu des mooy arbitre bi sifflé ñu suul tànk yi rayante ku mën sa moroom duma. nee na da ngaa tardé ci làmb paa nga de da lay jël rek nii pour andiwaat moom moo ma dëkk a bëree. c'est que man xama rek barki naa Mohamed xale bu ndaw laa. billaay wallaay taalaay. mais xama rek loolu nag dañ koy wane. dañ koy wane lépp la waa waaw la 14 la dañuy xam ku gën a nekk xale. la 14 Ousseyn Ousseyn bu fekkee ne question yemb na rek mu ñëw. la bu arbitre di daggee jéng yi kan mooy njëkk a manqué de respect moroomam dox ci kawam. ah moom rek mooy choisir rek. moom mooy choisir rek bu ko neexee mu ñëw bëre bu ko neexee ñu samp jaaga yi. man moom ku ne xam na ni sama neuf combats yi ma bëree yëpp arbitre bu sifflé damay suuf tànk damay suul samay tànk rayante. est-ce ñi nga doon bëreel ak Boy benn lañ. kan bu ñu màggee rek sañ duma ko. yéegale ndànk yi yéegale sa koñ nag bari na ay waga quoi. sama koñ rek gars yi dañoo xër rek. dañoo xër di sant waa daaka bi tamit maa ngi sant bu baax waaw leel leel su ma doomu ndey mooy ki nga gis sànq mu def tànku neen noonu di feej ñoo foowandoo kon man xale bu ndaw laa mais xama rek dañoo dugg ci làmb ak amour ñu dëkk ak sunu grand Moussa Dioum mu teete ñu jàngal ñu bëre def ci ñun lépp xama waaw lo instant bi daal Modou hmm. sama xol dafa fees ñii xam nga laa leen mën a fay hmm. mooy ndam rek incha allah pourtant loolu rek laa leen a nee na du ma daan la sekk ak yow de non gaz bu ndaw aw ma lenn lu may wax ak moom <laughs> aw ma lenn lu may wax moom moom na réglé rek ñu bëree ko ci fu xama nga la laay bañ hmm. arbitre bi sifle ku nekk di wut foo taxaw ak nii nii na ñëw ñu comme moom nee na moo ma dàq bëre. na ñëw ñu taxaw ñu bëre. Mm. waaw di ñaan nag yàlla may ma ndam di sant nag waa écurie bi ma xamee fa laa jàngee bëre. muy waa parcelle mbooloo. maa leen di gërëm bu baax waaw. Ousseyn nga ñëw. derby bi yéen a koy de te yaakaar naa Pikine moo mujj seen kaw de. non mais sama saak bi. mais ba léegi ñun ñoo mëne. Mm. ba léegi ñoo mëne. ba léegi yéen a mëne. ñoo mëne Modou Lo ñaari yoon la daan Eumeu Sène. waaw. Mm. Franc ñaata yoon la fa dugg. Papa Sow ëppale. Papa ñaata yoon la fa dugg. ayca ci àll kala ji yaa koy tëj. lu gën a mujj gën a neex tëj Pikine derby parcelle fii lay jeexee. fii Boy Sil buñ jaxasoowee ba pare. xoolal Papa Sambène doo toog. Modou Anta waaw. comme que jumaa ji day waaj noddu. comme que jumaa ji wooteel wooteel nañ woote. maa ngi sant nag suma yaay maire koñ bi. yaayu King Pape. di sant Tane Seel maire Waly waa Mbuubeen. Madi Thiam Dogo maire Waly yaa Siga Faye yaayu di sant. Seel Mbaye di sant suma waa kër suma yaay ñoom Maguette Tall jëmm Ngom ñëpp maa leen di sant Abdou Gueye suma ma ndijaay ñoom ñëpp maa leen di sant waaw. jërëjëf Moussa waaw jërëjëf jërëjëf.